Diamalahi Evans Evans Evans. mbokk yu tedd nuyu nañu leen del si ngeen ci seen journal waajtaayu appel ànd si ba tey nag ak Diamalahi Evans ak Layen Digital tey nag ñëw ak fii ci xunt mi nekk si Ngor yaakaar naa ne mu nekk bërëb boo xamante ni kenn du ko présenté si di nekk Seydina Limaamu muy bërëb bu am solo ndax yaakaar naa ni lépp fii la tàmbalee waaye nag ba tey ci waajtaayu appel bi. tey ñi nga xamante ni ñooy commission scientifique bu appel bi doon nan amal benn forum bu am solo jëmale ko ci thème bi nga xamante ni mooy la cohésion sociale di thème mu appel bi si noonu yabal fa sunu ndaw soxna Matilaahi dañ leen koy dégtal te delsi salaamaaleykum mbokk jullit yi salaamaaleykum waa Sénégal man la soxna Mati Laay bu jàmmalaay mons ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyuwaat ci baat bu sell boobu borom jàmmalaay jox ñu muy Laay Mamadou Makhtar Laay Laay 139e anniversaire de l'appel de Seydina Limaamu Laay ku ko wax sa xel na dem ci Baay Laay mi taxawoon ci sow jant woote baat bu rëy googu di aaji boo daayel laay loolu moo waral ñu taxaw fii tey ñu ngi fii place du souvenir ak waa commission bu diine ji bu axlu laay laayeen yëpp tey sama papa ji mu ngi fi taxaw dinañ jot a leeralal lan moo waral thème bi ak lan moo ñu fi indi ak lan mooy appel bi lan moo tax si ren du jël thème mu cohésion sociale dinañu ko définir ci en quelques mots. kon euh, man maa ngi tudd Mamadou Lay Diop maa ngi jógee Cameroun bokk membre la <coughs> ci commission scientifique de euh, nag lii dañu amoon habitude commission scientifique di dajale borom xam-xam yëpp. pour ñu wax ci bés bu rëy bi moy bés bi nga xamantene mom moom la ñuy waajal di bésu Seydina al-mahdi bi nga xamantene taxaw na ci Yoff woote ajibo da yàlla yaa maxcharal insi wal jinni ni rasulullah ilaykum wo nit ak jinne ngir ñu jaamu yalla bés bobu ñukoy magal bi at bii ren di 139e neuvième édition ñun commission scientifique daal di boole borom xam-xam ñepp pour ñu mëna xamal aduna kii nga xamante ne mu ngi woote mu tombe lii nga xamante ne jël nañ ko mooy euh, cohésion sociale ni mu wootee aduna yëpp sans exception ku gëm ak ku gëmul ak surtout li nga xamante mooy diine islam yëpp war a nekk benn ah mën a ànd nekk cohésion sociale bëggante mun a avancer loo société bi ndax loolu mooy bitu islam te loolu it moom la Seydina Limaamu lay al Mahdi woote mooy li nga xamante ne itam euh, tay jii àdduna fu aduna yéegi rek war nañu xam kuy Seydina Limaamu al Mahdi lan la woote ak lan mooy njëriñu doom adama ci woote bi lii moo waral bés bii tay commission scientifique du jouer rôle bii di dajale borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi sans exception mën nañu jël diine yëpp ñu ngi fii xeeti yëpp ñu ngi fii tey pour kenn ku nekk mën a xamal aduna kuy Seydina Limaamu al Mahdi ak lan mooy objectif am ci aduna

cohésion sociale sax thème yooyu daanaka jaar na fi jaarat foofu la yu ko niro way bo gisee bi ñu gën ci insister moy aduna bi dafa am fu mu toll euh am nañ ci benn leçon bu xaw a bi jàll ci élection yi nga xamne jàll na Sénégal ñu ñëpp tiitoon nañ ci loolu way cohésion sociale bi nga xamne mu ngi xawa euh am na fi sax way mu ngi xawa soxé mo ci may jàmm ba ñu gën ci loolu motax ñu xalaat gën ko renforcer pour nit ñëpp jàpp ci ndax euh, bu ñu fekkente ne ñu ngi ko sukkandiku ci jàngale Baye euh, alayhi salaam euh, dafay nekk la nga xam ne adduna yëpp dinañ xam ne lii buñ ci tegoo intérêt ñëpp la doomu aadama yëpp la loolu moo tax ñu gën koo waaye yàgg nañu sax jël tem yu mel noonu waaye bii dafa nekk ba nga pour ñu mën ko gën a dëgëral ci adduna bi. incha allah wax ji sell na wax ji rafet na kon xam naa loolu dina mën a am ci adduna gi ndegam loolu la ñu indi thème boobu la ñu indi ren. yi talibé di nga ñew ci bis boobu ba wax né serigne ablaye boko bëggé bëggee jeex ci tarikh gëw ma nga jox waaye boko ko ci l'islam di nga fa fekk té yaakar na ni réew mi di réewum sénégal réew la mu am ndono mu rëy ci diiné nit nak xelam dina gatt lool xool mbubbu gaay yi ba xeeb leen te ñu kawe ci yàlla mooy réew mii ci diine tey fii senegal toll yàlla baaxe na Sénégal ci ay kilifa diine yoo xamante ni tey jii ca xadral ilahiya nit ëpp leen fa cër lu tax danoo dunde diine ji rogalaat ko andi ko fi tey nee naa la àdduna su yàqu tey ci diine ak li coow li bari lépp Safari bi mag ñu yoroon fii te dañ ñu woon démb benn baaxut tey ku sañoon am safari Senegal mu saafara say société kon ne ngeen masukul ijtimaai Senegal, da di réew comme ni mu ko waxee fukki nit yoo gis juróom ñentey am na fu nu jokk mbokk yi tedd yi ñoo ko gisandoo mu nekkoon commission scientifique bu diine ji nekkoon foofu sa place du souvenir doon fa amal waxtaan bu am solo jëmale ko ci temu appel bi lépp rek ngir gën a vulgariser wooteeb Seydina Limaamu te di wàcceel appel bii ñu jëm waaye naka noonu mbokk yi ñi nga xamante ni ñooy waa mouvement des jeunes élèves et étudiants doon nañu amal benn ziar bu rëy sa xuntuma foofu sa ngor ànd ci nag ak Serigne Abo dañuy dem xool élément bi te delsi am naa lu ma yëg ma dégg jaam yàlla bii di yëkki ay di toftale ay sikkar yoo xam ne yomb toftale sikkar da koy xam. wayantu am na man maay abo li may wax fu bu jibril wàcc woon dama koy wax wayantu am na waaye si zikrullahi gi fi mag ñi bàyyi boo naabuwul ni mu ko toftalee ni doo ko man defoon naa ni ci moom la yem ndax sama rakkaa nga nële noo bokk bàyyi noo bokk man ak wunu yaroo xam na li may wax soo bàyyi may ñu woon centimètre buñ koy romb waye ma gis ñeneen toftalu ci di ay sikarkat damay wax ne allah alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamé ne doon ngeen ay jeune mais dese ngeen li nga xamé ne mom lañu soxla parce que li mo ñuy mo ñuy dundal ñun waye li am solo moy bi bi ma xamee ne ñew ngeen ak li ma dégg ak ni ñu leen xamé te bëgg ngeen jekkoo aduna jekkoo diplôme yi it poste de responsabilité ëlëk ndax diiné ji am cëslaay am lu mu lu mu lu mu motax mané bisu tey bii xeeb naa ci sama bopp man li tax nag ma leen koy wax mooy xaw ma kande waaye biir na ma man wallahi azim te am naa sedd ci li may wax maa ngi koy seedaloo sama boroom te sama jarbaat bi duma ko ci bàyyi aliyaam yi duma ko bàyyi ñu ngi dund fii loo xamee ne xaw ma kuy kuy nattable mbiru Seydina naa alayhi salaatu wa salaam waaye du ñun ñu ngi dund loo xamee ne mënuñu ko wax àdduna li ngeen gis li nëbboo ëpp téeméeri junni waaye bisu tey bii damay ñaan man duma ñaan tey Ibba mooy ñaan moo tax ma woolu ko mu ne ci liggéey bi te xam na ma xam na ma bu baax parce que moo yor vision 129 te bu ma ñëwee ci autorité am laay nekk damay jël bat ji takk nekk nuy programme mu ne ma nii la ñuy jaare danoo bëgg nga taxawal nu fii maa dem taxaw ci te dara itteeluma ci lu dul xew bu fi mën a am ñu def ko ci njekk ak teraanga ci yar ki teggin gi ñu xame woon loolu rek la ñu wut soxlaawuñ ci leneen soxlaawuñ ku ñu xam soxlaanu tey sax la nuy door a commencé xàmmee waaye soxlaawuñ loolu li ñu amal solo mooy jaam yàlla yi jooxe seen mbir te dem gis ngeen ko noonu mbokk yi mu nekkoon xale yooyu nga xamante ni ñooy élèves ak étudiants laayeen yi ñëwoon nag fii si Ngor ziar si xunta mi waaye nag dégg ngeen kàddu yu rafet yi nga xamante ni moom la Serigne Abo Lahi imnu Seydina maam Alassane Lahi di sët si Seydina Limaamu yëkkati muy kàddu yu am solo lépp ci gën nu xamal bërëb bi waaye gis ngeen ñaan googu xam ni moom la ñu Serigne Ibba Faye Lahi ñaanal waaye naka noonu mbokk yi ba tey nag ñu ngi poursuivre ak yéen ci set setal bi nga xamante ni moom la ñuy waajalee woote bi ànd si nag ak ñi nga xamante ni ñooy waa vision 129 tey nag ñu ñëw fekk si waa Ngor fii si xunt koy xool te del si téléspectateurs yu ñuy suivre si ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar di jël nu yooyu ànd ak ñaan jëmale ko sunu sang Seydina Baye Abdoulaye Thiaw di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér ak lu axlu bayti Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam gi yëpp di leen dokkeel nag ci li ñuy waajal muy 139e anniversaire wooteeg Seydina Limaam ñu ngi fii tey Ngor ku gis Ngor xam ne ñu ngi ci wàccaay bu mag señ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar di la di la nan ngeen waaja appel bi yéen fii ci Ngor. appel moom tout le temps comme nii ñu ngi ziare ñëpp di nuyu ñëpp di ñaan Baye Abdoulaye yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaan ahlu bayti Seydina Limaamu yàlla defal leen jàmm defal leen sutura teranga ju yaatu wax yaatu chaque année nag moom nii lañ koy waajee. Ah, appel tout bu ñëw dañuy xaar dans trois mois dañ fi toog di jekkal xanaa yi sa la jekkal dinaay ba dernier moment yi si li ñuy toogee di lay. pour wàññi xaa xam beex salte beex yooyu yooyu pour préparer pour xaar gan yi ñëw temps noonu lay demee chaque année moom nii lañ koy defee yàlla nag mu ñuy defal sutura boobu ba tey daal ñu ngi si wàccaay bi di préparer comme kuy dalal gan moom day metti moom tout temps moom il a préparer pour mën a donc euh, ku gis lii xam ne liggéey bi metti na fii ci Ngor parce ñuy gis poussière bi et mm. léegi ñaata jour ngeen prévoir pour lii lii moom presque moom tey semaine bi presque moom lañ koy passé ba Kara waa groupe base ñëw di mën a base moo tax tout le temps dañuy ñëw di nettoyer ba Kara affaire bi set le temps waa groupe base ñëw pour mën a samp seen i tib bu ñu sampee seen si la ñuy génn daal di jëm direction bale pour préparer côté waañ beex yooyu yooyu mais tout le temps noonu lay demee waaw. tey ñu ngi ñu ngi poursuivre en wàccaayu appel bi ak euh, sunu soxna si soxna Ndiémé dëkk fii ci Ngor soxna n ngeen waaj appel bi yéen jigéen ñi fii ci bisimilahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatulah Laye Mactar di la nuyu soxna Maguette di nuyu waa Diamalaye Events di nuyu mboolem ñu ñuy seetaan ah, defe naa nag ah, fii tey dañu ñëw en tant que daayira Ngor bokk si daayira Ngor waaye ñoo fekk fi ñi nga xam ne ne ñooy liggéeyal diine ji ñuy waa vision 129 nga xam ne boobu ba tey ñu ngi lay fépp fa nga xam ne ne war nañ fa dem appel tey ñu ñëw fii jàppale ñu fii si kuntu Ngor ah, waaj tay appel bi nag ñu ngi si massivement dëkk bi yëpp ngor moom bu ñuy waaj appel bi defe naa dëkk bi yëpp ñoo koy wàcc doo xàmmee ban mu murit tiijaan defe naa dernière semaine bi euh, li ñuy lay nii ñoom ñoo ko doon def muy Baay Faal yi ak Yaay yi ñëpp daal ñoo doon jàpp si liggéey bi donc euh, mu nekk semaine boo xam ne ne dañuy campé fii soxna Kine mi nga xam ne ne mooy sunu sang di Ibnu Chérif Abdoulahi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool mooy samp fii waañam euh, di toggal jaamu yàlla yi defe naa ñuy liggéey liggéey bi ba bésu appel incha allah donc di wax rek ne ñu ngi waaj appel bi di si woo mboolem jullit ndax xayru xalxilaay alayhi salaam ma woon démb màkk moo ñëwaat fii tey uh, fi mu daloon nag muy xunt mi di jencukaayu leer di nëbbukaayu leer yàlla jencoon fi leer gi ba tey appel bi ngor am si cër donc nañuy woo jàmm yàlla yëpp fii si ngor le 5 incha allah ak le 6 ñu appel si jàmm Cambérène ngor ak Yoff jërëjëf. waaw téléspectateur ñu ngi poursuivre ba tey ah, ak waa vision 129 ñu fekk leen nag tey fii ci ngor ñu fas yéene nettoyé gox bi sëñ bi nettoyage bi nan la demee fii. waaw salaamaaleykum ginaaw bi ma nuyoo ñëpp di leen wax ne kontaan nañ ci waa Ngor daal parce que biñ ñëwee fii comme ni dañ noonu ni ñu ko defee ñu chaque dañuy door liggéey bi jàmmalaay dem si mbedd Yoff yi ñëw fii Soxna mi après door tëjee Cambérène def naa tey nag dañu xëy ñëw Ngor biñ ñëwee nag macha allah fekk fi waa Ngor ànd ak ñoom ci liggéey bi muy liggéey bu rafet comme ni nga constaté ñooy ñu ngi lay fii di nettoyer fas yéene ko jeexal tey nag Ngor. suba delluwaat yof si mbedd yeex yooyu noonu mais comme Ngor nag dafa xaw a bëri liggéey léegi moo tax nag tey dañu xëy ñëw équipe en masse bi ñëwee am en masse tamit incha macha allah daal am nañ travail bu ñu fa accomplir te fas nañ kaa yeggal tey mu jeex tey bu ko defee bu suba ñu mën dellu si yoof doo ko mën a tëjee Cambérène def naa loolu daal moo doon objectifu liggéey bi di gërëm tamit Jahman Events parce que defe naa depuis début ba léegi ñu ngi accompagner si affaire bi fépp fu dem rek fekk si nañu fa jàpp si affaire bi génn image ndax ñi ku nekk si man ku nekk mën nga xam ba ko boo defee ba beneen yoonee dañ ñi dañ mën a xam liggéey ni mu demee ñu mën see ñëw jàpp daal waaw defe naa loolu daal moo doon solos liggéey bi mbay laay laay laa laa laay laay la laawoo laay laa laa yàllaay ki yoon ni mbay laay waaye boobu nag defe naa mooy terre promise ñu ko doon def di teeroo képp nga xam ne dina fi dal ñu naan xuntama nga fa ngor géej almade nga fa ngor géej aussi ba ñëw dëggal sa ngin yonen be donc le 5 ak le 6 ñu ngi woo jaam yàlla yëpp incha allah si appel Seydina Limaamu alayhi salaam jërë ngeen jëf laay Mactar ñoo ko gisandoo ba léegi mbokk yi mu nekkoon nag set boobu yaakaar naa ni ñu ngi ci liggéey bi ba léegi comme nañ ko dooree woon rek sa yoof jaar ci rokk-rokkaat yëpp ak si nan fii si ngor nag yaakaar naa ne dégg ngeen kàddu yu rafet yooyu waa ngor yëkkati ni kat ñoom appel bi rek mooy seen yitte te boobu ba léegi ñu ngi fii di waajal waaye yaakaar naa ne dégg ngeen waa vision 129 ñoom tamit ñu ni pareeguñu ba léegi ñu ngi poursuivre fa fas ne noo àgg si site yëpp nga xamante ni Euh, pèlerin yi dinañ fa ñëw waaye naka noonu soxna Ndiémé Lahi bokk ci daayira Ngor moom tamit yëkkati na kaddu yu am solo wax ni kat ñoom ni ngi waajal appel bi bu baax te nekkul laaye ni kase tariixa yi nekk ci biir Ngor yëpp ñu ngi waajal appel bi di leen jàppale si liggéey bi kon mbokk yi tedd yi tey fii la ñuy yem ak yéen ci seen journal wàccaay appel bi waaye ba tey nag di ñaanal ki nga xamante ni mooy mbër mu rëy mi si soo daal moom mat si nil daal sampa baa ngi ku feel xam ak a am doole sa pay ba moom Chérif Abdoulaye yàlla na fi yàgg tëwéer di leen ñaanal yéen mbokk jullit ñi appelu jàmm. Diamalahi Evans Evans Evans.